bi euh, fi may jeexee daal ci euh, maire Aïda Mbodj mooy mag bu amee fulla moo ko may boppam ànd ak say moroom sët sa taat ak bëgg accroché wu ci nguur te pourtant man man euh, abu dafa am question boo xam ne man dafa ma jaaxal ci Sénégal cest à damay gis ñoo xam ne ay mag yoo xam ne yàlla da leen teral wax dëgg yàlla namatuñu daraay àddina maire bii macha allah yorul benn kër catuwuma ko yorul benn kër yorul ñaari kër tera teraanga àddina bët la te moom am na ko yàlla suturaal na ko depuis jamonoy sengoor ba tey avant avant Senghor sax ba Sénégal nekkee ca ca ñaan ay ayof ak ñoomin seen ba tey maire baa ngi politique maire bi nguur rek la xam nguur nguur ak nguuru yow président bu ñu mës a am ànd nga ak moom mu teral la enseignante nga woon lijeenti lijeenti deug deug ba tok ku ñew nga and ak mom ku ñew nga and ak mom ku ñew nga and ak euh Macky Sall bu mu ñewé jël sa mag and ak mom ngeen xex yeen ñaar ca législative comme ni ba nga taxaw daay na Macky Sall do ko baal nak dugg na ci famille yak sa famille mm-hmm. te ginnaw la ci xew ci suuf yëpp ñëpp yëg nañ ko. bobu dafa joy sax war. nga joy ñëpp andano ak yow joy la la. nga jékki-jékki euh, euh, ñu dégg la nga naan Macky sa frère la sa càmmiñ la nangam ak nangam fekk am na diplomate si suuf boo xam ne euh, lalal basang la ñëpp noppi daay ne ah au moins maire bi kat dëgg-dëgg makee ko tooñ usum yi ñëw yow ay maire maam jaara faam ak yooyu ak yeneen maire yi perte yi ay maire boobu nekk xaw ma nan Blondin xaw ma yi ñëpp xëccoo nekk yaay Ousmane man ba ma gisee xëccoo ak yeneen meer laa ne ñàkk ngeen ndax maire bi ku mu ku mu xëccool ku nga perte ndax maire bi euh, euh, dafa mën dafa aay ci loolu maire bi dafa dafa dafa mën récupérer nit moom da lay nangaañ la boot la roggante la te xeetu xeetu parolu maire bi ak xeetu lem lema ah, la ma. léegi indil noonu parce que li utal Ousmane. ay voilà yoy yep maire bi mën euh, dëgg deug ku mu motax euh, dafa naan ah, est-ce amna am maire je pense pas amna am maire ku nga daanu ndax maire bi dafa ku doy war la lay waxal ni kon yow yalla teral la macha allah euh, sa kii njaboot gi ñoom ñëpp yàlla macha allah teral na len yow nga waron def ben retraite bu am solo ba pare. nga am raaya bu am solo ci Sénégal mooy ba nga nekk ministère de la femme ci yow la Ablaye Wade indee ñun Sénégal fii jigéen ñi parité ci sa magistère la loolu raaya la fii la li Abou Diallo wax sànq nit ñi am jox la cër doo dégg mukk nit sàllalu la bàjjan ngay dégg wala mama waaye yow tey bu ñu defee bàjjan wala mama yaa waroon am nag si wetu mu sell mi nga xam ne dafa tëre di të ya wara am ci mom taxaway personnalité taxaway kilifa ndax xalaat bu suba ba way nga fi bàyyi ak lu meuna a xew euh, ci euh, yaa ngi bañ bañ lu deugar lu way ci Ousmane Sonko mi ci la sa carré di fin définitivement kon nga waron na soigner sa sortie de la vie politique malheureusement nga def le mauvais choix ànd ak xamanteni euh euh mom déjà ben bombe la ma retardement bo xamné ku ku bus play lay xaar yo nga nek mom di bus play rek bësoo muk stop way bus play bësoo stop bësoo pause play yi na nga taxaw wax du sa cër ndax ay nañu nañu fayu yo koy fayontel, say morom seut sa taat maamaati maam 150 ans nga làq ko toog di ñaan ñu lay ñaanal wërgu yaram guddu fan waaw wax dëgg yàlla boo amee cent cinquante ans yaa ngi nii keroog ba ba ma gisee nga sol ah. lu rose loolu oh. ba large bi xale xale lu di jéem a defanteeg bee euh, mooy espèce mannequin bële ak sama yaay maam jaara faam nga xam ne oh. neexu la defal ndax moom euh, euh, mi ngi noonu daal yow nga sol lu lu fuchaa lool xaw ma dafa oh. rose fuchaa blouson la xaw ma vraiment loolu ci mag moo xamante ni te te mère bi may nañu fi lu ne amoon na ay jamono genre Ibadou la fi woon mooy mooy mooy ba muy def. doctorat ba man maire bi maire bi moo tax gis nga Ousou foog mu mun jouer théâtre mais Ousou ay comédien la àndal maire bi temps yooyu man xuloon naa si ba sonn ndax ñi ni nit ñi da nga naan këpp dama ko yooyu naan sa bàjjen xool lu mu sol daf benn affaire bizarre benn genre espèce mbaxane boo xam ne mel ne genre Cheikh Cheikh Charif bu jigéen def bu garaaw bu bizarre ak benn kii col bi ñu wàcc fii mba kenn xamul kap la kenn xamul mbaxane la mais di sol yu doy waar yu bizarre yoo xam ne may ma ni non bàyyi leen ko dafa delluwaat école di jàngi te dafa bëgg a nekk euh, xale bàyyi leen ko kon yow boobu ibaadu nga woon mais ana ibaadu léegi ak di woote xeex di woote front tey bu ñu doon woote front yaa nga daw làqatu sa kër tëdd na la attanoo front munoo sax dox boo da dañuy jàpp ni watatu la nga yëg dox vraiment nit nit ñi nag bu ñu joxee cër da ngay jox sa bopp dana jox sa bobu cieur maire mais bo togué fi bëgg 5 ans yi nga bëgg gat sa gat sa say morom sa sataat yi mais du soti hein ah. ñom ñoo gagné wax ko ñom ñoo gagné ba bari yeen nekkutul opposition yeen a gagné wax deug fa yalla yeen a gagné ñun baye la wax yeen nek ci pouvoir ngeen ngeen ngeen nguuru tamay ñu jamm ba paré bolé jëf waaye toog fi di front ba ngeen opposé front pouvoir ngeen bëgg a front di front ak ay cadavre ñu mel ni ñun wax fa dëgg yàlla yow maire yow front warul ndax fi ñu toll nii wax dëgg yàlla téye kurus gee la war téye satala bi foo foo foo foo daayee am nga taal ko nga dem so waaye boo bëggee nag yow taxaw fi mu ne nii eh, naa na nga jiite front wax dëgg fa yàlla loo fi dégg nag yaa ko yóbbee sa bopp te eh, noonu laa duggee nag ci discours Diomaye bi xam ngeen discours Diomaye bi démb damaa